problème yoo xam ne soulevé waat nañ ko les syndicats génne waat nañ ko syndicalistes yi defaat nañ ci li nga xam ne mooy waxtaane waxaat li nga xam ne mooy l'opinion nationale ci problématique yi nga xam ne ñoom la ñuy ñoom la ñuy dund moo tax tey dañ cee bëgg taxaw parce que benn fee la boo xam ne vraiment soxal na toute la population donc ñu si dégg dalal ki nga xam ne mooy Abdourahmane Gaye nekk secrétaire général de l'UDEN Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal tey moom la ñu dalal Abdourahmane ñu ngi lay dalal di la di la nuyu baax a baax merci Euh, mbégte ak bànneex bu mag laa am. Mhm. si dalal leen fii si suñu kër gi nga xam ne moom lañ tuddee kër Uden. Mhm. Euh, pour euh, waxtaan ak yéen si mbiru actualité rawatina si mbiru njàng mi ak njàngale mi parce que loolu moom mooy suñu raison d'être ñun jàngalekat. kon euh, su ngeen ñëwee fii pour taataan suñu xel mbégte lay nekk rawatina. Mhm. sama doom ñëw di ko <laughs> dëgg la dëgg la waaw ah, loolu moom loolu moom loolu la loolu la loolu la yàlla def Abdourahmane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax vraiment am mbégte ak kontaan comme ni ñu ko waxee mais tey dañoo ñëw ci actualité maanaam la rentrée scolaire gis nañ encore c'est la rentrée scolaire mais y a les problèmes encore qui sur qui encore lan moo waral li tax wax ci bëri actuellement ci li nga xam ne mooy njàng beeg njàngale bi. xam nga njàng ak njàngale dafa nekk loo xam ne lu am solo la. si askan parce que mooy euh, tax ñu mën a tàggat euh, doomu réew mi euh, ba ñu de nekkee tout tànk pour ñu mën a am melokaan ak jikko yu mucc ayib waaye ñu am xam-xam boo xam ne dina mën a tax ñu mën a bokk si ñi nga xam ne tey dañuy am solo en tout cas si si réew mi kon njàng du affaire foo waaye ñu gis ne naam tey su ñu jëlee payooru jàngalekat yi mën nañu wax ne am na lu si yokku waaye loolu benn bu tuuti la si li nga xam ne moom la jàngalekat soxla lépp parce que li gën a soxal jàngalekat mooy mu nekk si cadre boo xam ne da koy mën a permettre mu mën a sol ay ndongo daaram xam-xam bu sell. condition muy condition de travail yi parce que xale soo jëlee. Euh, école bu tout tànk yi tey boo jëlee ab xale nga yóbbu ko école mu dem mais mën na am bëgg-bëggu dem gànnuwaay kon école ba war na am li ñuy wax ay mbañ gàcce yoo xam ne euh, xale bi dafa mën a dem suturlu waaye tamit war na mën a nekk ci classe boo xam ne classe bu koy permettre mu am cofeel pour chaque jour mu ñëw fa muy cadre idéal mais bu ñëwee foofu aussi war na euh, am béréb boo xam ne bu jàngee ba war a noppaluku ah mu am fu mu mën a toog jël ndékkeem euh, muy li ñuy wax naan kuuru école bi. école bi jàng kese joxe ay xam-xam. waaw te loolu yëpp dañu gis ne dafa sooke rawatina ki nga xam ne mooy jàngale euh, depuis ay at soo leen xoolee suñu école bi coow li da ciy bari. dañuy am ay garew euh, ñu toogoon nag waxtaan en 2018 le 30 avril plus précisément daa di d'accord ak gouvernement bi si ay poñ ñu nekkoon kon nañ jëmmal poñ yooyu boobu léegi soo leen defee xayma bi léegi mu mat juróomi at am na poñ yoo xam ne naam réglé nañ ko waaye am na poñ yu bëri yoo xam ne dafa desandi te bi nga xam ne moo si gën a nekk bi nga xam ne tey Euh, mu mobiliser jàngalekat yëpp mooy suñu nattangoo yi nga xam ne ay jàngalekat lañu yàlla def ñu nekk ay décisionnaire xam nga euh, bu fekkee danga bokk ak nit bérébu liggéeyukaay ngeen tolloo ay lijaasa ngeen bokk lu ngeen di def moom si payoram mu mun laa fay ñaari yoon loolu lu doy waar la te li ko indi lenn kese la mooy ay décision yoo xam ne président bi fi nekkan muy Senghor moo ko jëlan euh, yooyu nag moo leen topp ba jamono yi passé ñu waxtaanoon suñu biir muy parti administration ak parti syndical ba jàpp ne wax dëgg laa la lii dañ ko war a coppar ni pour fexe ba ñépp ñu tolloo ñu juboo si nag jëmmal ko des mais ñun ay jàngalekat lañu ñu duñ jëmmal état mooy jëmmal état war a jëmmal mais ñu gis ne état bi bi mu waree jëmmal waran ci gaaw boobu ba léegi mu ngi tendafal vraiment te loolu mën na mën na jur jafe-jafe yu mag. lan mooy lan mooy problème ci kaw ci kaw décisionnaire parce que yaa ngi koy wax depuis ba tey jii nii amoon ngeen ci accord mais ba tey état dafay tendefal lan mooy problème mu le cas lu tax c' est peut-être leur nombre ñoom bëri moo tax état ba tey mënu ko mënu leen régulariser wala dafa am beneen aspect boo xam ne daf cee nekk boo xam ne xamuñu. ñoom dañu jàpp ne day am njeexital si koom parce que décisionnaires yi euh, euh, attewul leen yemalewul leen ak fonctionnaire yi yow bu fekkee ne danga tolloo ak ak ak nga jël tey ñaari jàngalekat nga jël koo xam ne décisionnaire la nga jël koo xam ne fonctionnaire la moom bu amee lijaasam bu góor góorgóorloo ba am lijaasam pour mën a jëm si kanam lijaasa boobu nga xam ne dafa am ay lenteur administrative mën na toog ñetti at ñu soog koy signal kayitam waaye buñ ko signalee kayitam ñetti at yi mu toog pour ñu signé ko dañ naan ko bokku si bis biñ ko signé rek lañuy jël en charge alors que bu dee fonctionnaire bi c'est rétroactif jour ba mu defee examen bi jàll la ñuy considérer moo tax su ko dugalee finance moom day am rappel fonctionnaire bi mais décisionnaire bi du am rappel si wàllu payeur aussi boo ko xoolee si diggante décisionnaire bi ak fonctionnaire bi dafay mel ne yàlla ak yàlla yi te pour pourtant ñoo bokk lépp lu ñuy def te lenn rek yenn saa yi rax ñu gisaat rek beneen rax beneen beneen beneen jafe-jafe si décisionnaire yi parce que am na ñoo xam tey dañ leen def décisionnaire te war ñu woon nekk décisionnaire parce que pour nga nekk décisionnaire day fekk sa diplôme professionnel nga am ko fekk weesu nga fanweeri at ak juróom yenn saa yi nga gis koo xam ne day teel a am diplôme waaye lenteur yi am yéex yeex yi am si acheminement dossier bi ak signature bi balaa ñu koy signé rek fanweeri at ak juróom yi weesu xam nga kooku kon boo ko nee yow décisionnaire nga tooñ nga ko parce que moom amoon na diligence am avant mais yéex gi du si moom mais si nguur gi la kon nag loolu war ñu ko toppee naam tax si poñ boobu jubóo nañ si parce que état bi nangu na ne képp koo xam ne yaa ngi si situation boobu nañu wane preuve yi après ñu réhabilité la delloo la sa àq ak yelleef li si des mooy tey ab décisionnaire boo demee retraite ndax li ñuy cotiser ñoom IPRES lay dem demut fonds national de retraite. pour ñoom dañoo nekk ci système éducatif bi mais boo xool dañ leen jàppee comme des privés. waaw cest à en réalité en tout cas am na différence bu mag ñoom ak ñële parce que ñoom IPRES la ñuy dem comme privé yi euh, fonctionnaire yi dem fonds national de retraite mais li leen di verser ci képp ku si dem retraite si ñoom sa première payee ko rek boo ko fay rek ñu si yëpp dañuy am AVC dañuy feebar parce que koo xam ne mën nga fay ko ba yenn somme yi nga dem ñu xaaj ko juróom wala juróom-benn boo demee retraite nga dem ñi ngi may wax sax jamono yi passé benn dame boo xam ne demoon na ba nekk proviseur euh, décisionnaire la woon euh, xëy na salaire am kawe woon na mais bi mu demee di fayeku mais daf bi ñu ko joxee salaire montant bi dafa dafa dafa daanu si sa su crise kon loolu dafay. c'est c'est dérisoire. waaw loolu dafay wane waroo bi nga xam ne am na si ni leen di jàppee ni leen di traité loolu moo tax nag ñu waxtaanan dans tout sa dimension parce que dañu traqué woon question bi dans toute sa dimension mais ñun point d'achoppement bi lan la woon moo doon su fekkee ne état bi nangu na delloo leen seen ak ak seen yelleef mu ne léegi man dama koy daal di commencer si ñii ñii ñii waaye bu mu fàttee ne ñii ñoo ko xeex waaye am na si ñeew xam ne commencé woon nañ xeex bi ba dem retraite kon ñooñu est-ce que dañ leen di bàyyi. question rétroactivité posé wu waaye jàngalekat yi nangu nañ ne lépp lañ koy waxtaanee kon nañu toog ñu waxtaan ñu xayma xaalis bi nan nan la toll ñu seet li ngeen mën yéen ñun aussi ñu xam ne ñu ni nen la ñu waxtaan kon dem nañu ba tolloog foofu ci état bi mais malheureusement euh, état ci boppam parfois doo ko comprendre parce que dañ naan naam ne waaw waaye pour nga gis leen tax problème la ndax mbir mi nëgë ni war na nekk suñu ginnaaw mais bu ñu ko réglé wut école bi dal bi ñu ci bëgg du am loolu muy benn poñ mais ñaareel bi nga xam ne tey war nañ ko réglé mooy li ñu tuddee les chargés de cours nga xam ne souvent dañ leen di recruter ñu nekk ay instituteurs nekk ci classe yu suufe yi waaye ñoom bi ñuy dugg ci métier mi. amoon nañu ay lijaasa yu leen mënoon permettre ñu dem si moyen secondaire bi ñu gis ne àll bi day manqué ay professeur anglais mathématique français comme ñoom am nañ lijaasa yoo xam ne dëppoon na ak lijaasa euh, academique yu nekk si euh, moyen secondaire ñu yóbbu leen foofu pour ñu combler déficit bi xam nga kookoon ñu ngi def ay sacrifice ñu nekk foofu di continuer di fayeku fayeku euh, fayu instituteur Mm-hmm. alors que dugg nañ ci corps professoral. te ñu ngi enseigner au niveau du moyen secondaire mais ñooñu dañoo war a defal leen un plan de carrière pour que ñoom ñu mën a selon le diplôme mën a dem FASTEF def formation pour nekk ci corps bi nga xam ne moo dëppoo ak lijaasa bi ñu am réellement mais loolu tax dafa nekkan jafe-jafe loolu aussi je crois que waxtaan nañ ci ba. Euh, ren ji am na jéego bu si am am na benn nombre boo xam ne yóbbu nañ leen euh, naam jàpp nañ ne nombre bi nombre bu bu bu tuuti la waaye pour ñun euh, dara moo gën neen waa avancé la waaw nañ gën a continuer pour que ñooñu ñu mën leen a gën a jox considération parce que nag c'est des soldats de la craie te ñi ngi liggéey liggéey bu mucc ayib. liggéey bu mucc ayib yaa ngi wax sànq ba tey ci problème cest dire corps bi cest dire boo xoolee ci wàllum ci wàllum carrière mais bu ñu gisee aussi rentrée scolaire bu bu ret bi aussi difficulté yi bëri na ci ci ci wàll bi on parle d'un déficit de professeur yaa ngi wax léegi-léegi ci décisionnaire ak ak ñi nga xam ne mooy mooy damay damay fàtte tur bi li yaa ngi leen di wax nii léegi-léegi. les chargés de cours les chargés de cours donc ak décisionnaire mais y a un des des enseignants benn bu ñu ñëwaatee aussi il y a les abris provisoires xam ne ba tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi fi Sénégal di di régner donc le manque de de classe aussi se fait se fait sentir donc problème aussi bëri na ci wàllum insuffisance aussi de moyens mais aussi humain aussi. dëgg la xam nga dama doon bëgg a liste rek euh, revendication yi nga xam ne ñoo gën a tar euh, daal di euh, ñëw si sa laaj beneen bi beneen ñetteelu poñ bi nga xam ne jàpp nañ ne jafe-jafe la te dañ ko war a saafara mooy. mais suñu maître euh, d'éducation physique yi mais dañoo waxan ne ak nguur gi ba génne décret bi ne dañ leen reverser pour ñu jóge ci corps bi ñu nekk B4 dem B2 nekk comme ay euh, PSMEG éducation physique mais malheureusement dañu war a dem formation pour un certain nombre de mois mais gis nañ ne foofu aussi teen defal am na fa. tey dafa yéex. Euh, dafa yéex te loolu aussi dañ ko war a saafara. Euh, METP yi ñu nekk dans l'enseignement technique aussi c'est la même chose kon li ma li nga xam ne jàpp nañ ko mooy jafe-jafe yu gën a tar mooy yooyu am na nag yeneen léegi nag ñu ñëpp ñoo ko gisandoo euh, bu ñu bëggee école bi doon école bu mucc ayib il faut ñu am jàngalekat yu doy maanaam classe bu nekk am ab jàngalekat mais gis nañ ni tey jàngalekat yi dafa manqué te li mu manqué dafa bari soo xoolee xayma ministère bi. moom 8000 lay wax. 8000 la wax ci xayma. mais ñu ñëpp xam nañ ne 8000 du 8000. mille na parce que bu ñu xoolee recrutement spécial bi amoon ñoom ñoo génne woon bataaxal ne am na juróomi euh, téeméeri euh, jàngalekat yu manqué muy cinq 25000 enseignants que ñoom dañu procédé recrutement chaque année ñu recruter lu tolloog 5000 enseignants benn yoon rek lañ ko def mais xam nga kon si diggante bi absorbé wuñ ko parce que boo xoolee crème bi. ay deux la ñuy recruter au maximum 3000 kon comblé wuñu vide boobu. man sama problème tamit loolu ci wàllum crème bi parce que ren organisé nañ ko je pense que ni bu ñu waroon xam ne déficit bi ak am na ni je pense que mënoon nañu profiter du crème pour résorber un peu le le gap je pense que du ñu mën a résorber le gap totalement mais dinañ ko mën a un peu def ci benn xayma bu bu bu bëri bëri bëri ci wàllum ci wàllum concours crème. et nous nous sommes pour ça parce que ñun dañu jàpp ne Sénégalais yëpp ñoo yem dayoo ñoo yem daraja waruñu favoriser kenn. te recrutement spécial li muy indi mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey parce que ñi nga xam ne am nañu possibilité dañuy fab seeni njaboot di leen fa dugal loolu mooy dëgg du ñu xool niveau nit ñi alors que bu ñu defee concours en bonne et due forme mais on prend les meilleurs kon ñun li ñu bëgg mooy naam tey jafe-jafe bi posé wu dañ ko war a solutionner il faut ñu trouver ay pexe pour que classe yëpp am jàngalekat mais ñun dañu bëgg ñu jaarale ko si ni ko war a jaaralee. moo ñu def ubbi concours wax ko Sénégal yi képp koo xam ne bëgg nga def examen bi nga dem mbindu ñu def concours bi ñu jël nombre bi ñu soxla loolu mooy dëgg loolu mooy yoon. dëgg mais boo xoolee gouvernement bi ak seen conseil ministériel bi ñu def ak 18 mesures yi nga xam ne dégagé nañ ko je pense que recrutement pers euh, boobu noonu ñu koy moom moom la ñu envisagé comme comme comme comme solution. waaw moom la ñu moo tax dégg ngeen coow li ku nekk yaa ngi wax de gauche mais xam nga ñun UDEN dañu nekk syndicat boo xam ne syndicat bu responsable la ñun en toute chose dañ koy teg si taabal ji traqué que euh, euh, suñ si waree ŋàññi ñu ŋàññ suñu waree indi ay solution ñu indi sa ñun li ñu bëgg mooy recrutement normal ñun loolu la ñu bëgg te loolu mooy tax école bi am ay jàngalekat yoo xam ne yu mucc ayib la mais bu ñu mënta am loolu ñu war a dem recrutement spécial dañ ko war toog waxtaane ka ñu teg ay critères fa xool ba nga xam ne dina fexe ba amoindrir euh, népotisme amoindrir lépp loo xam ne day indi par parparloo parce que par parparloo fu mu dugg rek poson la day yàq léegi nag lii tegu suñu kaw te ñu ñëpp mu tegu suñu kaw mooy soo jëlee tey mouvement bi bi ñu ko defee ba pare mouvement ren bi maatam lu toll lu mel ni maatam mais trois cent et quelques enseignants jóge nañ fa maanaam zone yi ñuy tuddee zone périphérique nga xam ne ay zone la yu nekk si biir Sénégal ña fay jóge di ñëw Ndakaaru wala aux environnements de ndakaar dañuy bari mais doo gis kenn ku jóge fii dem fa mais nag nga baal ma euh, SG dafa mel ni tamit enseignants yi dafa mel ni dañuy daw côté yooyu noonu c'est-à-dire lu mel ni maatam lu mel ni Kolda dañ koy daw pour ñëw ñibbi un peu ci wetu ci wetu ci wetu Dakar beeg yooyu noonu mais tamit c'est un problème parce que enseignement war affaire affaire patriote la c'est-à-dire warul metti rek ñoom ñu daw aussi. non xam nga c'est normé xam nga du ku nekk moo fa mën a jugee tey pour nga jugee sa post il faut nga def un certain nombre d'années mais xam nga bu yónnee jàngalekat bi suñ ko recruter il faut mu def juróomi at ci àll bi bu mu mën a dem. léegi moom bu defee juróomi at yi moom moom boppam su demandé en bonne et due forme affaire bi jaar mouvement mu gagné postom ñu war ko yóbbu xam nga kooku mënoo ko wax dara mais problème bi mooy état moo war a teg ay matuwaay ba nga xam ne tey parce que gouverner c'est c'est c'est c'est prévoir c'est c'est prévoir yow nga jël say matukaay ba nga xam ne tey bu fekkee am na un certain nombre d'enseignants bu jógee si telle zone da nga xam ne xale ya fa nekk di tout tànk yi ay sénégalais leen comme man ak yow ñu war leen mën a timit remplacer ba nga xam ne xale yi foofu ni seen morom yi ndakaaru amee jàngalekat ñoom ñu war ko mën a am aussi kon ñun loolu lañ jàpp te loolu lañ yaakaar ne loolu moom mooy li nga xam ne mooy moo kii mooy mooy moo moo war a nekk waaw bon maintenant à l'impossible nul ne tenu suñ demee nag ba nga xam ne léegi xam nañ ne euh, parce que cette situation elle se pose à nous et elle est là il faut que les enfants là dem école. kon boog mën nañ jàpp ne ren comme ni nga ko comme ni ko waxee mën nañ jàpp ne vraiment ci wàllum jàng meeg njàngale bi dinañ gis école yu bëri yoo xam ne vraiment dinañ tëj soit les classes parce que enseignants yi newuñu fa wala ab ay abri provisoire la nekk c'est-à-dire les conditions de travail melul ni je pense nu mu war a mel ba ñu war fa mën a jàng def def li nga xam ne mooy. l'éducation li mën a li li li nekk xam nga mooy lan dañuy def ay classes double flux mooy benn maître yore ñaari classe wala ñu def ay classes multigrade benn maître yore ñaari classe en même temps ñii nekk nii ñi toogee nii mais loolu dafay am njeexital si nombre waxtu yi ñu war a jàng et loolu c'est codé au niveau international dañ naan pour que njàng mi ñu mën a wax ne njàng mo mu dëgër la il faut au minimum nga def 900 heures mais 900 heures mais loolu euh, bu gërëw amee xale bi di jàng xaaju li mu waroon jàng du ko matale kon njàng moomu day daal di lacune bi day topp élève bi te loolu dafay impacte si niveau niveau élève bi. te mën nañ xaar aussi ay grèves cest ñu ngi ci ñu ngi ci début année scolaire bi cest dina avancer on peut s'attendre que aussi def ay grèves ci li nga xam ne mooy points yi nga wax nii. waa xam nga xam nga euh, ñun toujours dañuy am une posture prospective moo tax dañu mës a wax nguur gi il faut nga mettre à profit vacances yi waxtaan ak jàngalekat yi seet jafe-jafe yi nuñ koy saafara ñu saafara parce que loolu mooy jàmmi école yaa ngi gis coow li commencé na rawatina ren dañu nekk si année boo xam ne c'est une année particulière. je pense que dinañ ci dinañ ci ñëw contexte aussi sociopolitique contexte bi sociopolitique mën na impacter influ influer si comportement wu nit ñi mais dans tous les cas dans tous les cas ñun UDEN en toute responsabilité dañu ne jàngalekat bi. bu ko neexee mën a def politique am na si sañ-sañ bi citoyen la waaye na ràññetle métier jàngalekatam ak moom bu amee ambition wu def politique mu xaajale leen vraiment ñu bañ a utiliser école bi à des fins politiques. des fins politiques kon ren mën nañ jàpp ni ak contexte sociopolitique bi actuellement mën na impacter bu baax a baax ci li nga xam ne mooy éducation d'autant plus aussi les problèmes yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ko ci ñu donc on peut s'attendre vraiment année scolaire 2023 2024 bi mu nekk année scolaire bu bu xaw a ula. ah en tout euh, na coow li na te coow euh, kenn parce que mooy euh, question yoo xam ne. ñi ngi koy waxtaanee boobu ba léegi te wutal ñu ko saafara te euh, euh, ñun liñ jàpp euh, te suñu bëgg-bëgg mooy fexewoon ba année bi nekk année bu dal ñu bàyyi tout tànk yi ñu jàng ndax njàng ci la lépp nekk loolu mooy suñu bëgg-bëgg mais nit ki loo bëgg-bëgg mbir day fekk nga matale ka kon te ki ko war a matale kenn kese la mooy ki yore dogal bi mooy la gouvernement kon na gouvernement bi def kem kàttanam ba jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi fi mu xool nu mu koy saafara koy saafara mais nag wàllum éducation SG bëri na problème yoo xam ne ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci nemmeeku est-ce que tamit du jot tamit ñu ñu ñu am tuuti patience c'est-à-dire les syndicalistes les enseignants am tuuti patience ci wàllum ci wàllum règlement des problèmes yi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci éducation parce que bu ñu la déggee nga listé li nga xam ne le nombre de problèmes je pense pas nekkul loo xam dañ koy régler du jour au lendemain aussi oui loolu c'est une évidence et c'est pourquoi soo xoolee euh, les syndicalistes et, ou les syndicats dañu observer la trêve en tout cas wala syndicats yi si ëpp te ñun ñu bokkoon si bokkoon nañ sax si cadre des quatre boo xam ne ñun benn moment dañu taxaw ne ñun vraiment il faut que aussi ñu xool ne école bi aussi euh, ñun kese moomuñu ko dañ ko bokk ak ñeneen te nag wax bët bu rusut toj malgré que jafe-jafe yi mi ngi fi mais ñu dinañ taxaw loolu moo tax aussi on s'était démarqué euh, si yenn grève yi parce que ñun pour ñun am na yenn grève yoo xam ne ñun vraiment euh, way jaru ko woon waaye loolu du tere ñu jàpp ne liggéeykat saa yu amee jafe-jafe si bërëbu liggéeyukaayam lenn dong la mën a def wala ñaar dong ma mën a am mooy ñu toog waxtaane ko mu am une volonté de part et d'autre de résoudre difficulté yu ñu am wa ilaa ñu dem dem dafi gerew gerew nag moo war a mujjee léegi nag jafe-jafe yi fi nekk mais nañ toog waxtaane ko moi je suis à près sûr et certain bu ñuy toog di waxtaan état bi di def ay effort nit ñi di gis ñuy sentir mais nous sommes tous des patriotes nous sommes tous des citoyens Euh, te bu boobaa tamit defe naa ne euh, très sincèrement l'amour de cette école la que nous avons de cette école là euh, dina dina dina dina dina dina génn dina feeñ. RG wax nga sànq lu am solo c'est-à-dire politique éducation dafa nekk loo xam ne je pense que waruñu ko waruñu ko mele mais actuellement les enseignants. est-ce que nekk nañ aussi ci ci logique boobu noonu parce que ni nga koy wax sànq contexte bi ñu nekk contexte politique la vraiment ku ne am nga foo am nga foo fari mais non l'enseignement c'est le service public est-ce que enseignants yi aussi ak les syndicalistes ñu ngi leen di gën a soññu ci ci li ni mel aussi wax leen ne y a une démarcation entre la politique ak l'éducation nga xam ne service public la loo xam ne pour la pour la population. je crois que le débat se pose présentement waxtaan bi ñu ngi siy waxtaan ko si dem def na si waxtaan ñun ñii si suñu instance yi waxtaan nañ si ñu bëri ñu ngi siy waxtaan même rajo bi tax damay dégg ay waxtaan yu mel noonu. ñun ay jàngalekat lañu kuréelu jàngalekat lañu nekk ñun dañuy défendre suñuy jàngalekat ñi bokk si ñun ak képp kuy jàngalekat mais dañ lay défendre si dëgg ak yoon parce que ku tooñ munoo ko défendre loolu moo tax dañuy wax toujours jàngalekat yi ñun ay liggéeykat lañu liggéeykat dafa am lu ko tënk nous sommes des fonctionnaires nu sommes des décisionnaires nous sommes régis par la loi 61 33 du 15 juin nga xam dañu am ay obligation ay warteef yoo xam dañ ko war di xëy waxtu di wàcc waxtu am discrétion dans ce que nous mais aussi di prodiguer un enseignement de qualité et loolu il y va de la dignité de l'enseignant parce que bul fàtte ne jàngalekat dañ ko mës a fonk dañ ko mës a respecté dañ ko mës a jox dayoo si melokaanam nekkinam xalaatam et quand je te vois je vois ton père qui était quand vous le boo bu gis mu solo mais tout le monde voulait être enseignant mais loolu la ñu bëgg jàngalekat yi dellu si business mooy ñu xam ne tout tànk yi si njaboot gi lañu ñu xam ne dañoo am ak ñoom àq li ngay am pour mu lew la il faut que li tax ñu la koy jox nga matale ko loolu la ñuy wax suñu ñooñ léegi nag ginnaaw nga def loolu lépp nag ba pare am nga sañ-sañu nag laaj li nga xam ne yow yàq moom waaye loolu boo ko wut mais daanaka loo wax du safe leneen li mooy wax naa ko sànq ku nekk am nga sañ-sañu defi politique bu la neexee waaye politique bi dafa am fu mu war a commencer ak fu mu war a yem sa tedd nga mooy liggéey bi boo ñëwee sa bérébu liggéeyukaay liggéey rek nga fa war a def soo paree dem sa kër yaa moom sa bopp su la neexee nga def leneen waaye boo defee leneen foofu dara fekk la si bul ñëw di ko jooyee si école bi. surtout la responsabilité il faut dara ñëw ñu préciser ko bu baax a baax li nga wax dafa am solo cest boo demee ci leneen leneen dal la fa na nga engagé sa propre responsabilité. et loolu ñun nous avons été très catégorique nous l'avons dit sans embâche ni gant dañu ne da ngay conséquent nit da ngay am cëslaay nit da ngay dem ak sa xel nit da ngay def lu jaadu ku dem defi politique sa parti woo la nga dem def fa ñu jàpp la mais jàppewul la école camarade jàppewul la école maintenant tant que en tant que solidarité de corps mais syndicat yi mun na ñaan njëkk su dee da nga tooñ ñu ñaan njëkk ne ah ñun kat kii si ñun la bokk tin ko parce que ku dut juum amut su boobaa mën nañ ko waxtaanee moo tax ñun daal li ñuy wax jàngalekat yi nañu yem fi ñu war a yem su ko defee buur bi laaw borom mbaar mi mi ñuy tiim dinañ am fayam parce que tout tànk yi loo si def rek alalu yàlla la yàlla fay la ko mais tamit dinga siggi sa baat ne poto ku def li nga war a def doo sëgg te jàngalekat noonu la war a def. jàngalekat noonu la war a def euh, SG sama réalisateur mi ngi ñaan ñu temps bi mais je pense dinaa ñëwaat un ci performance bi vraiment ak qualité bi mais nag ci beneen aspect c'est-à-dire les écoles privées gis nañ ne aussi aussi dafa am benn pullule des écoles privées loolu est-ce que tamit warul. taxawul jotul ñu def si taxaw seetlu waxtaanee ko parce que tamit ni nga ko waxee c'est-à-dire mën na impacter un peu sur la performance ak la qualité aussi de l'enseignement. xam nga tey le débat. Mhm. n'est plus un débat national c'est mhm. ñu am chance bokk si kuréel gi nga xam ne moo gën a mag di ëmb jàngalekat yi ñu tuddee ko IE muy international de l'éducation nga xam ne 40 millions d'enseignants ñoo si nekk mu nekk si 170 pays. quatre cent organisation nekk ci à travers le monde ñu couvrir le monde à travers ces différents continents mais jàngat bi ñu def mooy tey soo xoolee réew yi euh, yu ci ëpp privé bi dafay law te privé soo ko waxee rek mooy ku yore koom di fay su ma ko doon misaal tey si Sénégal di gis ne tey mbedd moo génn rek am na école privée te parfois école privée yi du ñu répondre au critères parce que spécificité Sénégal mooy da naan da ngay ubbi ba pare ñu soog lay seet pour reconnaître la boo defee demande rek dañ lay autoriser après nga dem mais bu leen fàtte ne classe dafa am ay normes classe boo ko waree ubbi dafa war a am aération yaatu élève bu fa nekkee ngelaw di duggee fu nekk mais tey da ngay gis kër loo xam ne kër néeg la du mat 3 mètres sur 4 moom lañuy def ay classe tañ ci fa xale yi ensuite jàngalekat yi ñuy jël du ñu ay jàngalekat yu qualifié dañuy am seen diplôme rek mais ne pas n'importe qui enseignant enseignant da ngay am sa lijaasa ba pare ñu ñam ñu tàggat la kon te gis na ni ñu bëri tamit école yëpp mel ñoo am na école yoo xam dañuy répondre nag ay privé yu répondre dañuy fab seen doom il préfère fab seen doom yóbbu leen si privé bi parce que dañ naan public bi dafa bëri grève am na ndax ay jàngalekat yu koy def et pour man loolu xeeb sa bopp la mais l'histoire a montré que ni ñi jaar public yi ñu bokk ak ñi ñi jaar si privé yi parce que fii dañ lay tabax nan ngay xalaatee pour nga mën a am autonomie indépendance di demal sa bopp mais fële dañ lay sol moo tax ñu si ëpp bu ñu ba université rek dañuy sonn souvent duñ def ay études supérieures mais bref pour revenir à votre question. Uh-huh. c'est une question qui se pose à nous et à laquelle on doit apporter une réponse. te jot na je pense que le ministère ak euh, le système éducatif je pense que ut ci ay solution def xool nu mu ko nu ko réglé. xam nga privé mënut a ñàkk tey. parce que si xayma soo doon xool tey dañu naan ne 4 millions élèves moo am 4 millions élèves 4 millions élèves yi presque 1 million 500 yi ñu ngi si privé bi ça veut dire que public bi mënul te ñëpp am sañ-sañu jàng kon privé bi am na njëriñ. mi ngi aidé bu baax. Mhm. mais dañ ko war a organiser de sorte que privé bi bu mu nekk n'importe quel privé e dans le dans notre conception ñuy xool nu ñuy taxawalee ay jéego pour mun a absorber de petit à petit le reste pour que ñu mën a et puis prodiguer un enseignement de qualité wut ay jàngalekat yu xarañ tàggat leen ba nga xam ne. école bi day am ay résultat aussi yoo xam ne day nekk ay résultat yu soutenable yu acceptable. tax EG kon kon euh, àndoo ak li nga xam ne mooy le recrutement spécial mais temps bi ñu joxoon impact roon jeex na dama lay jox EG euh, nga def benn récapitulatif je que wala loo am da nga ko ci da nga ko ci dolli ñu doog a clôture. waa di di di nuyu sama mbokk mhm. euh, di leen kañ. di leen wax ne ñun nous sommes utiles pour la dayoo ak suñu daraja. Mhm. tax nañu war a mën a am benn melokaan bi mhm. kon maa ngi tàggat képp koo xam ne jàngalekat nga ma di la ñaan di la kañ mhm. nga xam ni yow nit mën na la bañ a faale mais yow nga faale sa bopp parce que il faut parler comme Bachelard mhm. qui disait que l'opinion pense moins et traduit ses besoins en connaissance bu nu bañ fu ñu sedd si gaalu xaj waaye buñ ma ci buñ ci kenn fekk merci beaucoup SG tey ñu ngi nekkoon ak ki nga xam ne mooy Abdourahmane Gueye secrétaire général de l'UDEN Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal moom lañ daloon waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy l'actualité maanaam rentrée scolaire mais aussi les difficultés yi nga xam ne moom lañ ci noté mais aussi mi ngi ñëwaat un peu sur les solutions ak lépp li nga xam ne je pense que war nañ ko cee mën a def mooy l'éducation par ma voix dañuy rendre hommage monsieur Malick Tall inspecteur de qui est mon qui est ma bàyyi la je pense que bu fekkee da nga am. non c' est mon c' est mon c' est un grand inspecteur. il fut un grand grand enseignant. nous avons été ensemble à Guédiawaye nous avons relevé le défi ensemble man ak moom. mais c' était un modèle d' et je l' ai tout à l'heure un enseignant c' est un ensemble. si vestimentaire am si tubaabam. c' était quelqu'un boo xam ne dafa bëggoon jàng. Euh, et loolu feeñ na tey. donc yàlla na yàlla guddal fanam euh, li mu def si système bi def ko si doomu jàmbur yal na yàlla fay ko ko euh, enseignants yu mel noonu la ñu bëgg enseignants yoo xam dañuy gëm seen bopp dañuy commencé fi gën a tuuti mais am ngëm-ngëm seen bopp ba jëm fi gën a kawe loolu lañuy ñaan naka jàngalekat yi roy merci beaucoup SG maa ngi koy wax coucou coucou. <laughs> merci maa ngi lay coucou coucou. dëgg la merci beaucoup SG ñu ngi lay remercier remercier aussi équipe bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci réalisation bi Papis Dem Souleymane Sy fàttewuñu bu baax a baax Serigne nga xam ne moo ñu indi ba fi tey mais aussi Khadissa nga xam ne moo jàpp ci montage bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig jaaj incha allah semaine prochaine même heure même chaîne merci beaucoup.